coupe du monde n'est na événement historique boo xam euh, monde bi yëpp en fait nous ko bëgg monde bi yëpp a xaar bien vrai que 4 ans c'est vraiment quelque chose de xam lu mais quand même chaque fois muy ñëw day nekk loo xam ne lu ñu neex la te suivre à la lettre dañuy top match donc mu nekk un événement qui xam première édition c'était en 1930 du dooguma mais depuis lors à chaque fois nous ngi fait chaque édition day gën a nice euh, day am

muy football sax dama déclenchement de Frank Lampard tellement man mu joueur caractère am ci terrain am abnégation am dévouement am ci joueur dire que 70 de chance tey jii pour nekk dernier carré franchement parce que li ñu rek Coupe d'Afrique euh, tax na ba ñi nga xam ni monde bi yëpp en fait le tout tout le monde footballistique en fait bàyyi nañ leen xel donc mu nekk une équipe favori ak potentiel yi ñu am ci joueurs yi ak tamit entraîneur bi nga xam ne bi ñu am bi nga xam ne am na benn maturité am na jaar-jaar am échec comme am na ay ay yu mu gagné donc ce qui veut dire que tey jii Sénégal war nañ ko mën a xool fu sori te ñu ngi koy yaakaar. Rituel d'avant-match euh, bon je pense que peut-être oui c'est-à-dire que damay euh, bon damay ñaanal koy ñaan yàlla surtout Sénégal buy jouer damay ñaan yalla mu dimbali ko mu gagner xam nga parce que lool moy suñu mbëbët ñun ñëpp loolu la bëgg en fait parce que Sénégal bu gagné wu réew mi la réew mi day neex dëkk bi day xumbu te avant tout aussi damay dugg di xol peut-être classement bi di xol ban ban ban ki euh, ban impression la ci am par rapport ak euh, potentiel joueur yi am pour mëna am yaakaar wala peut-être am ben ben aperçu peut-être ci ci euh, jeu bi nga xamni équipe bi mëna ko produire en fait. Mon joueur préféré jamono ji sûrement Chelsea Je hein. suis naa dina joueur Chelsea euh, à la personne de Thiago Silva c'est un joueur que j'apprécie énormément parce qu'il est respectueux du terrain bien vrai que Magle, mais quand même il y a des jeunes qui xam ne duñ ko joxe. dama football xam nga mu football c'est une passion Comme le comme cinéma bi une passion le football est une passion je suis le match tellement concentré Je amul en tout le temps damay suivre match à la lettre du ma détail après match le suivre donc mu une passion que je ne dama franchement football c'est la vie. donc mes journée incroyable en fait incroyable parce que man euh, benn resto match bi Corniche des Almadies. Euh, match yëpp laa ko seetaanee en fait donc final bi fa laa ko seetaanee jour boobu donc bi ñu ñëwee série euh, foofu moom sama yaakaar moom dafa dafa dama amatuma benn yaakaar en fait ci gagné parce que xam naa ñun série moom mosu woon am chance euh, ci tiro bi am na kenn ku doon seetaanee match bi sama côté kooku rajo la jàppoon man maa ngi toog maa ngi seetaan télé bi mais rajo bi moo nekkoon en avance en fait donc bi may seetaan ma jéeg-jéeg waa ji rek laa doon bàyyi xel waa ji rek laay bàyyi xel tout le temps bu réagiré ma xam ne dugal nañ tiro bi wala dugaluñ moment bi ñuy raté foofu dama naroon jóg génn dem parce que dama gis waa réagir découragé ba tourner mel koy dem mu jékki-jékki rek commencé wat yuxu fekk ñu ngi won en avant sama xel commencé dal ma tok mais tiro biwu bi ñuy gañe bi waa yuxu yuuxoo waa ji sax dafa def ben moment mais man dama yuxu ñepp top ma te dóoraguñu sax ñu rajaxé fofu yépp daanel table yeeg toj fofu yépp génn dugg ci dëkk bi non may dund lo xamné en fait joy sax la la wax def nako jour bobu tellement c'était

Euh, je suis un acteur et en même temps un prestataire de voix pour les publicités et modèle photo aussi, publicité. Donc, je vous invite à suivre le Mondial des célébrités sur 13 TV.